C'est une boisson punch. Ak. albégué monte fraîche. Cabinet Serine Touré. Bon produit à garabio yu dilis xaarkat bu checker bu côté brioche dorée bi. House, meilleur partenaire pour votre body care, vente de produits cosmétiques situé aux HLM Grand Médine près de l'école Dior. Nous lundi di may série boutique à ak Zik Buzz Music waaye yéen lii lu mu doon xanaa da ngeen xëy tuxi bon ñu ngi ci koor yéen ngeen di raak xaral ma ñëw toj lu bon ñii lu ñu mel ne ku fon lu bon yéen ngi toj sama téléphone te lu may at man dama sonn eh dama xëy war ba ngoon gos bàyyil <coughs> eh dindil xoj bi bàyyi daam dindil kutt bi eh booy bàyyil ko loj bi muuma tël ma kenn ki bàyyi daam lu tax yow nga koy sëlëm eh damay toj sa bon xeexul man yow da ngaa gëlëm gina ma xoolee daal ma ñëw ma ñëw di di jënd mu naam naan doo ibu ndafa. day fel waxul dëgg. ay eh, xam laa ju ma leen bu leen ma sonal déglu ma leen du ngeen liir buy namp ween eh, fëccee. te du ay noppi bu ma amat tii na dakk ngeen di mbëkkante ko may nag. nit ñaa ngi woor yéen ngeen di raag def leen seen bopp ay mag sama buntu buntu kenn du fi coow mag client yi comme mu rog soow man moom jàmm laa woote maandu dëgg ak ambiance bëgguma coow. ah ah ah ah ah ah kii moo ko tooy man ma munu maa comprendre mu ma xaw ma sax lu muy wax et puis li yaaram dafa par dafay mel ni sax ku lay jax ok demal mën naa ko régler coow li ci boppam sax la ñuy teg ne goos awal nii yàgg sa tegle bàyyi dam yamal yow munoo régler salaamaaleykum waa laa yow na ngeen def yéen a ngi si jàmm jaam foofu benn si ngom bàyyi daam góor day dëgër ngamay saf jek buy reugal du bay nga tak wodu wo seur ngamay ndiro ni mbrok be jay ma lu ci jar malastik ku nan am nga shingom gor day wax ni kani saf nit dakar tak ci fokh ni lingom nu yoyu noy bu moko nuyo ci boy yambar nga lolu cum bu ndikan gor bu lay nuyu dana la assalamu alaykum góor bu daan saw bu njëkkaan da ngay dégg maan xër xër waaye gu nay tey fe ngay toll léegi maan ceew ceew ana góor ak xeesal sol pain bu élastiku fecci sabar mel ni jigéen macci tuñ ji melastiku yenn melokaan yi du yëfu góor jàmbar nañ ko baw ak jigéen góor day góore ni Cheikh Anta Diop buur sin ku mëndoo fen yow jaama ma dem koor gee la jàpp ngay wax nii rek cim yow ni nga ŋaamoo maa la bañ jëy seetal ma lii daam jaayal ma kii ci yàlla ku jur lii bu ne am na ci réew mi man jëwrin Abo Rijal laa xam ngay nuyoo di mbëkk waaye ci loo leen ne yéen ngi baax waaye fii du dëkk góor ca góor ña góor du ànd ak jigéen ji koy góor na mat sëkk teel a dugg nekk góor teel a takk soxna loolooy dëkk e eh, bay daam xaal e eh, sa fal gi dafa nooy waaw bay daam fël Abo akasa dafaral ndoguli seen cabinet Serigne Touré borom produit ak garab yu mucc aybi bi di lis xaarkat bu mag bu nekk ci côté brioche doré. bi. House meilleur partenaire pour votre body care vente de produits cosmétiques situé aux HLM Grand Médine près de l'école Dior. Nous leen boutique série boutique lay ak à